benn nag di woon rek njëmbatum garab saytu ko ak toppatoo ko ba mu màgg loolee nag ngir rek xeex lépp lu jëm ci désertification te loolee nag soxaloon rekk benn pàcc ci réew mi la grande muraille verte nag. gën a yaatal mbir yi. taxawal sax ab programme intégrateur de la grande muraille verte. tracé grande muraille ci Sénégal fukki commune la woon ak juróom-benn wala juróom-ñaar. Euh, gis-gisu Grande Muraille ci naka ci naka la ñuy sampee ay mbir yoo xam ne dina gën a ñoŋal alam bi waaye tamit dina gën a boole askan wi ci biir la ñuy def ak jëfin bi ndax koom bi nga xam ne tey moom la ñuy moom la ñuy sàkku dafa am ay lu ñu ay cadre yoo xam ne dañ ko war a mën a créer ci xaani muy juróom ñaar fukki pôle te pôle yooyu day nekk ay pôle yu résilient maanaam yu mucc ayib yoo xam ne dina mën a joxe ay réponses. gudd gàtt nag boobule programme war naa rek tax ba ñëpp mën a am xëy te it ñëpp mënal seen bopp loolu lépp nag ñu soxla ca rek ay koppar yu takku. ñaari milliards de dollars euh, moom la ñu mëbët loolu ay mëbët la ci pro moom moo war a dëpp programme bi donc tey euh, ñi ngi ciy waxtaan ak ñu bëri ñu bëri joxoon nañu seen en tout cas accord ci bëgg ñu accompagner naka la ñuy accompagner. ba ban auteur aussi donc loolu dafa laajaat yeneen waxtaan. fi mu toll nii nag ña taxawal boobule programme ñi ngi rek dajale yooyu la koppar di waxtaan tamit ca na nga xam ni noonu la mbir ya di doxee waaye tamit ak jeexital bi mu bëgg ñu am ko ak seeni partenaire ñuy xamle ni nag fi mu toll nii nag am na yaqin ni rek boobule programme dina dox.